jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne tey nag ñu ngi fii ci benn hôtel de la place xam naa ni dinañ ci dinañ ci gën a xuus ñu togg koo xamante ni promoteur la wala boog promoteur la fas yéene doon moom la bëgg dugg ci làmb muy abu Thialamber tuddee sculture bi mu nekk boggal production mu nekk loo xamante ne xale la mais xale bu am ambition parce yaakaar naa ne li nekk ci réew mi ci li ñu war a liggéey bari na boo tëbee métier yëpp ne man kat dama bëgg a ñëw tey doon promoteur fi sama papa Gaston yóbbu làmb sama papa Luc Nicolaï teg fa làmb ma fas yéene ñëw bay waar mel noonu ci làmb kooku kon dañ koy ñaanal mu dal ak jàmm mais bi mu ñëwee dafa ne wasaare làmb laa taamu moom laa bëgg a toogee waxtaan sama projet yi nga xamante ni am naa ko ci làmb ñu nangul ko ko ndax nag wolof daf ne ku bokk ci gétt bi naan ci meew bu ñu nee wasaare làmb promoteur ñëw choisir wasaare làmb fas yéene waxtaan ak moom dinañ mën a waxtaan moom ndax wasaare nekk fi ngir kenn fi nekk ngir intérêt sénégalais yi waaye intérêt ñi nga xamante ne dañuy safoo làmb ma nuyu ko bàyyi ko mu nuyu mbokk internet bi su ko defee ñu weel waxtaan bi abu maa ngi lay nuyu baax di la ziar. waaw ñoo lay fay. Hmm. di ziar ñu ñuy seetaan. di hmm. wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. Hmm. maa ngi nuyu sama mbokk yëpp. rawatina sama mbokk Haalpulaar yi. ñoo leen di nuyu di leen wax. on calminaama njuuraam. caggal yettere alay nalaanum Cheikh na Amati Dia. mi salminimon mi juurimon hmm. ah, kala mbiɗo mbi mi mbima hen foof mi salminimon hmm. dental uh, fouta foof hmm. salminimon ko wayno ɓoggel beeli adi min calminimon min juurimon on ñagama duwaw on neldama duwaw no mbiyanon ɗum ñana foof tan ko ɓiya mon woni ɗo ko baƴiraɗo mon woni ɗo eyyi ina wona e liggey mawɗo ene ñaagui no fewi fewi fewi waaw mbiyaam asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu maaleykum salaam Abu li nga wax ci ci ci ci pël nan nga ko mën a waxee hmm. ci wolof parce que lan nga wax traduiral ma ko ndax dégguma làkk bi si dama doon nuyu sama mbokk pël yi rek xam nga lépp sama cosaan la hmm. Boguel hmm. samay maam cosaanoo samay papa fa lañ cosaanoo te defe naa moom mooy base bi moo tax mënuma def lenn lu dul delloo leen njukkal di sàq si ñoom ñaan di leen ñaanal aussi di leen wax ne man ndaw laa ñu ñaanal ma seen doom laa seen jarbaat laa. Hmm. seen raq laa. Hmm. waaw. lan moo la dugal ci làmb ba nga fas yéene ñëw. Mhm. ne da doon promoteur da nga daan suivre mhm. doon dund da amoon mbër. Mhm. nan nga def ba dugg ci làmb. man li ma dugal ci làmb. Euh, mun naa ne làmb dafa nekk sama deret. Hmm. dama kaa tarbiyu bu baax. Hmm. waaw doon ànd ay mbër doon teel ay mbër tam seen ngemb hmm. di gis ñuy kontak hmm. ma leen seetaan. ma xam ne ñii lu ñuy def nii mënuñu ma ko dàq ñu ma ko. si laa commencé di dugg si làmb di foowantu affaire yooyu noonu. ba ma dugg ci làmb arène. waaw bëri ci ay combat yow mi waaw bëri nga combat. si bëri naa ay combat ñaata naa quatre combat. macha allah waaw bëri naa quatre combats. def na am ñaari. am ñaari victoire am ñaari défaite. ñaari victoire ñaari défaite. waaw maanaam maa ngi woon si jéggi siraat daal. yaa ngi woon si jéggi siraat. waaw mais mais mais sa quatre combats. Mhm. nan nan la abu def. Mhm. ba ba bëree combat bi ak défaite bi donc ko ubbee ci sa premier combat. Mhm. wala da nga njëkk a ubbee victoire nan nga def. sama premier combat dama ko ubbee victoire. Hmm. waaw maa ngi ko bëreeloon ak Saala Dios. Hmm. waaw am ci nam bu rëy a kan moo tëggoon loolu. Euh, Lune production moo ko tëggoon. Lune production Alioune Gueye. Alioune Gueye. Mhm. kan moo bëri grand combat bi yaa ngi koy jàpp. grand combat bi métro ak puissance ñoo ko bëre woon. lay la maa nga ca làmb ja boobu. maa toog ci bi kaay métro. <laughs> làmb gi. bilaay saan ba dëgg la. Mhm. yaa bëri ñaata combat. man maa bëri woon troisième combat bi. troisième combat. waaw ndeysaan. waaw maa bëri man maa nekkoon mbër bu xees bi. <laughs> ndeysaan loolu mënatuma ko rappelé mais loolu boo may fàtte stade Jom Iba Mar la woon. Iba Mar la woon. ndeysaan ah, yooyu yaakaar naa su ma juumul ba léegi am na yu des sama kër métro <laughs> métro man la déggoon billet yi ma jël billet yi denc ko sama sama mm-hmm. armoire mais macha allah. Mm-hmm. nga dugg am ndam. Euh, say mbokk bi ngay dugg ci làmb ji. Mm-hmm. nañ pour nga bëree. lan moo tax nga jékki-jékki rek bàyyi. samay mbokk ba may dugg si làmb. Mm. am na ñu si àndoon. am na ñu ci ànduloon. Euh, ñu ci àndoon nag dañ ci àndoon parce que dama doon jàng. Hmm. ñu ne ma kon garaawul naa ko booleeg jàng bi. Hmm. après nag ma dem ba par la suite laa ëpp mu doole. Hmm. waaw mujj bi damay dem fu ne di dem bëre ci àll bi. ma dem ba xam ne instant làmb ji ak jàng bi mootuma ko boole quoi. par la suite si la bàyyi jàng bi. waaw si la bàyyi jàng bi. continuer si làmb ji. ban classe nga bàyyi. maa ngi bàyyi terminal. macha allah waaw terminal laa bàyyi. Hmm. léegi lan moo la dugal ci làmb. Hmm. ba nga doon promoteur. Hmm. jékki-jékki wala ci ban moment nga xalaat di man mii kat. mën naa doon promoteur de lutte. dugg ci làmb. fas yéene tëgg ay journée. ak si ambition ci làmb lan la. Euh, sama ambition ci làmb euh, ci kaw laa bëgg a dem waa ci kaw a kaw comme gars yi fu ñu nekk. Hmm. mais damay def ndànk-ndànk rek. Hmm. li ma dugal ci promoteur aussi mooy damaa dëkk ak ay mbër. Hmm. goxu làmb lañ nekk parcelle moom goxu làmb la. Euh, ba pare di gis mbër yi nu ñuy dundee bu ñu am bu amee combat. mu metti lool te man bi may bëree. ba ma nekkee en tant que lutteur. dama doon jàppale mbër yi. yow mi wallahi azim ñoo leen jàpp ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni en même temps mbër nga ma nekk mbër di leen jàppale boobu ci lan nga doon yëngu boobu maa business waaw man moom damaa yàgg dugg si ay waaw dugg ak génn yaa a xam tineel yi si tineel yi mm, promoteur moom fi jëlee xaalis du ko wax mais tineel la ko tuddee ci tineel yi <laughs> waaw waaw <laughs> après par la suite mm. may gis mbëri li ñuy man tamit gisatuma sama bopp si la ji ndax gars yi fayatuñ fayatuñ man li ma waroon fayee mm. si laa jël recul après ne comme mbëri man maa leen di jàppale pourquoi pas du ma leen tëgal ay combat mooy gën a yomb si ñoom quoi. Mm-hmm. ma naa naa doon promoteur tëgal leen ay làmb ñuy bëre. Mm-hmm. loolu moo ma dugal ci promoteur. Mm-hmm. jàppale mbëri jàppale sama gox surtout waa parcelle. waaw ndax olof Ndiaye fa ne bay saw weewu tànk. ndeysaan dëgg Euh, léegi actuellement kon bu saison bi ubbee. Mhm. ci la boggal production di ñëw ci làmb. Mhm. fas yéene def baptême baptême de feu ci làmb. Euh, nan lañ la mën a xaare mhm. ak ci yan combat lañ jàpp ni boggal ci yooyu lay lay lay tàmbalee. waaw am affaire bi moom da ngay def ndànk-ndànk rek. Hmm. mais pour xalaat rek. Hmm. lu ma xalaat bëri na trop trop. Hmm. pourquoi pas ma tëgg ay tëgg tournoi ay ñoom Modou Lo ay ñoom Ama Baldé boole leen. yow Balla Gaye waaw. def ko benn tournoi bu rëy bëreloo ñooñu. yow mi ah, man mi <laughs> ah. waaw parce que moom kii tëdd ci lalam boo la gën a xam baat lalam. lan ñeme ngaa jël Balla Gaye Modou Lo Ama Balde ñoom ñooñu ne da nga leen boole tournoi. Balla Gaye moom du bëree tournoi bu Ama Balde. Ama Balde ah ñu xool yéen ba ñeme naa lu raw loolu. waaw ñeme naa lu raw loolu. kan moo ne sa ginnaaw. man kenn ku sama ginnaaw ku dul yàlla suñu borom. waaw yàlla suñu borom rek moo nekk sama ginnaaw ak samay ñaanu waajur. non mais li nga bëgg a jël dafa diis est-ce que du dangaa ñëw pour xuuxal yéen la yi non booy. booy ndànk <laughs> rek. non xuuxal ma promoteur yi sax. Euh. xuuxal ma promoteur damaa nekk sama yoon rek. promoteur yi di leen ñaan tamit. Hmm. di leen wax ne man seen rakk laa. Hmm. seen doom laa seen jarbaar laa bi. Hmm. waaw ñu teg ma si yoon rek. ñaanal bu baax. wax ma fu may toogee. ñu jàppale la ñu jàppale ma bu baax surtout. waaw promoteurs yi tey. yan promoteur nga gis ni actuellement ci lancé bi ñu nekk ci làmb Bogal production bëgg nga mu dem ba toll foofu wala mu romb ko waa promoteurs yi comme Gaston Meng ay Luc Nicolaï hmm. Pape Thialis hmm. Fallou Ndiaye ba Abdou Fall hmm. ñëpp ñëpp bàyyi ma kenn waaw ñëpp bëgg naa toll fu ñu toll waaw ndax actuellement ni ngi démarré ay mbër waaw actuellement maa ngi démarché ay mbër wax dëgg yàlla. Hmm. maa ngi démarché ay mbër. Hmm. fu mbër yi am na ñu déggoo am na ñu déggoogul wala. non jubóoguñ nag si ay kàddu nag. mais ñoo ngi ñoo ngi siy waxtaan. juboo dégg génnee avance wala ju juboo euh, ci contrat verbal. juboo ci contrat verbal. juboo ci génne avance aussi. Hmm. waaw joxagoo kenn avance. joxaguma kenn avance. ndax balaa ngaa joxe avance ngeen juboo waaw mais yan combat actuellement ci yan combat ngay dox ba ba war a joxe avance. combat yi may dox bëri nañ trop. waaw ci mbëri. Mhm. Euh, maa ngi dox Belende. Hmm. am na ko ma koy utal. Belende ma waaw Belende mu Grand Médine. menn mi menn mi. Hmm. maa ngi koy utal. ku ci mel ne tamit ñaq jëriñoo. maa ngi koy utal adversaire aussi. ñàkk jëriñu koo ko koo ko bëgg utal. waaw. xam naa après loolu dinañ ci gën a yaatal incha allah. <laughs> ah yow kan ah. moo la kan moo loolu <laughs> parce a bu bees kay day dugg la la ñàkk jariñu ak diw. <laughs> non lañ def laag rek. Ah. lañ def laag naag rek. ñàkk jariñu yaa ngi koy utal adversaire. maa utal adversaire. Ah. ay agogo aussi. maa ngi hmm. ku ci mel ni Boy Diop tamit maa ngi koy utal adversaire. yow kon sa boy koñ xanaa nga a nga bëgg a teg. waaw béy sa weewu tànk sa weewu tànk. mais est loolu du la complication après sa diggante ak mbër non non parce que comme ni ma koy waxee sax du rek. Hmm. lu ma def lu ma mun laay def quoi. Hmm. waaw du ma def loo xamante ni mënu ma ko. Hmm. te tamit lépp lu may wax ak nit ki damay waxante moom lu leer ci lu wóor. ci lu jub. ci loolu laay dox. ndax kenn mësuma xamee ci ay yu ñàkk fayda. waaw bëgguma tamit di room mu mbër wala di romb kii que ce may sëgg wala may jaadu koñ ak yooyu noonu. waaw non de là. Hmm. ok ah ñu ngi lay ñaanal parce que yaa ngi jëm ci loo xamante ne vraiment. Mhm. yoon bu gudd la. ndax yaakaar naa yaa ngi jàkkaarloo géej. Mhm. waaye da xool ba sa fi bët yam. li ci ginnaaw mënoo koo gis. làmb noonu la. Mhm. ñu ngi lay ñaanal rek lépp loo ci séentu ba dugg ci. yàlla kàttanal la doole la ba nga amee ko ni nga ko bëggee. allahumma amiin. beneen bi mooy gis nañ. Bogal production. di dugg ci ay jàkka. nettoyage yi ñuy gis. tournoi de football yi ngeen organiser ak yu mel noonu. Mhm. bëggoon nañu xam loolu lan moo ko waral ak organisation yooyu ñu gis. Mhm. ci lan lan moo waral loolu. waaw loolu moom. Hmm. amaana léegi la fekk mais loolu yàgg na su ñun. Hmm. ñun dañoo judd social. Hmm. dañoo ñëw fekk suñu parent yi nekk ay nit ñu social. waaw di defar jàkka yi. ak yeneen ak yeneen di defar ay forage waaw di dimbale néew di doole yi. man ci loolu laa judd moo tax su ma ko deful rek def ma lu ma war. Hmm. te sama koñ laa war a njëkk defee lépp tamit hmm. aussi. Hmm. ak sama waa dëkk. moo tax ñu commencé def suñu journée sesetal. ànd ak ci waa Sénégal autrement. ak waa ASU. ak ASC yënguleen ak yeneen association yu nekk si koñ bi. ànd ceeg tamit maire bu maire bu bees bi. Euh, su Jamil Sané. di ko wax ñoo ngi gis euh, liggéey bi mm-hmm. yàlla na yen bi oyof mm-hmm. di sant euh, Youssouf di sant Moustapha Cissé Sénégal autrement mm-hmm. di sant ñoom Mountakha di sant Lom Hamidou Dia di sant ñoom Pape ñoom Papis Anne di sant ñoom Baba Thiam sama mag bu jigéen bi ramatulaay Ba di sant Aïssatou Ly aussi maa ngi sant ñëpp daal suma ma limee dama jun ñoom temps aji jaxate ñoo leen di sant Mor Beng Sofi Sow ñoo ngi sant ñëpp di sant waa daara ji Serigne Mor Diop tamit ñoo ngi koy sant bu baax di saax si moom ñaan bu baax a baax a baax di sant Thierno Amama koy sant Malal Thierno Malal waaw ñoo ngi sant ñëpp daal di sant waa Bogel di sant ñëpp sant monde entier. parce que nga ñoo ciy waxtaan bu baax a baax. waaw. nga allah di sant borom Añam tamit. waaw. Farba. ñoo koy sant di saax si moom ñaan bu baax te incha allah li nga wax nii léegi bëgg nañ tëgg journée boogeel te incha allah fas nañ si tuddee Farba Ngom ci kàttanu yàlla ndax nit ku social la ku baax moo ngi def ñuy gis ñoo ngi sant ñëpp daal di bëggee ñëpp waaw maa ngi lay jaajëfal bu baax wolof def na lu duufandoo ci nag bi mhm. xajandoo ci cin bi mais xam naa dinañ gën a amaat yeneen jotaay incha allah gën a waxtaan mhm. yenn mbër yi bu ñuy bu ñuy dem incha allah rabbi dinañ ànd mhm. dem xooli mbër yi incha allah leen yooyu yëpp incha allah rabbi dina am incha allah hmm. waaw yow tamit ñoo ngi lay bëggee bu baax hmm. di la jaajëfal ndax dañ laa woo rek hmm. tànxam loolu dañ laa woo nga ñëw laajoo ñu dërëm aussi lu may wax man dafay leer Hmm. laajoo ñu dërëm ñaanoo ñu dërëm waxoo ma naa jox paas waxoo ma naa jox dara. waaw. Hmm. nañ jàppante rek incha allah. Hmm. waaw yàlla promoteur yi dañoo neexut a jàppale da jàppale ba ci kanam ñu jékki-jékki rek mu leex. <laughs> yaa ma gën a xam ñu daw. non ñun ak promoteur yooyu bokkuñu. ñun moom lu ñu wax la ñuy def rek dañ koy def. lu ñu mënul def duñ ko def. ci kàttanu yàlla. waaw jëla sant bu baax di gërëm waa wasaare aussi bu baax a baax a baax. waaw. di gërëm tamit hôtel bii ñu nekk nii Pullman. Hmm. ñoo leen di sant bu baax di leen gërëm. Hmm. waaw noonu la fa demee daal. jërëjëf ñu ngi koy jëfal bu baax. Hmm. di jaajëfal personnel hôtel Pullman yëpp. di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. mais di kontaan bu baax di béggee Ali Sow mi nga xamante ne vraiment. moom laa woo. ñu waxtaan ci lu bëree bëri vraiment mu lijjantil ñu fii. ba ñu mën fa def émission bi nga xamante ni. bëgg nañu ko mbokk yi di leen jaajëfal bu baax. Mhm. di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen